لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحذر إذا شئت سهلا فجلس واتن في تفصيل إن شاء الله لتنبلي بدأي في بوكو آية 103 في لا تدركه الأبصار سورة الأنعام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ولي لله رب العالمين والعاقبة للمتقين amul benn borom bu dul yàlla kon képp ku woote woo borom doo borom morom nga maanaam képp ku woote woo borom doo borom morom nga ndax jullit bi teel naa xam ni am na borom borom boo xam ni ba mu koy sos kenn fekkewut ba mu koy dimbale ci biiru ndeyam kenn fekkewut ba muy dee ñu koy dugal bàmmeel mu koy laaji kenn fekk kon borom boobu subhanahu wa taala kon borom boobu subhanahu wa taala xamal na ni moom moo bind lépp li sa bët tege lu mu tegewu loo gisat loo gisul loo xamat la nga réere kon lépp day dellu ci borom bi subhanahu wa taala wa anna ila rabbika al muntaha foofu la daj dëkk gi nekk lu waay rëy rëy lu mu am am xam-xam lu mu am am pexe sa yatiihi yawmun yarji ila rabbi bis dana ñëw mu dellu ci borom nit nu mu toll bis dana ñëw ñu ne yàllaa ci des nit nu mu toll bis dana ñëw ñu ne moo fi yëpp nit nu mu toll bis dana ñëw pexe yépp taxaw ñépp taxaw nag ci xaar borom subhanahu wa taala kon loola teel koo bàyyee sa borom moo gën loolu tax na borom bi nee na bët du ko gis du ko jot waxoon naa dars bi passé nii bët lu mu xaabawul du ko gis maanaam bët lu mu tënkut munu koo gis la ca kanamam la mën a gis waaye la ca ginnaaw munu koo gis te wax naa ko ci benn jotaay mu am ku ma weddi borom xam-xam bu mag weddi ma yàlla dogal bi ñu mbëkkanteelu yàgg mu jot a dellu ginnaaw dama wax wax bu gàtt dama ni bët du gis gannaaw mu ne ma déedéet mën naa gis gannaaw boo gestoo man du gestu du gannaaw wala déet boo wëlbati gisatoo sa gannaaw sa kanam nga gis maa ngi jàkkaarloo ak yéen ba bëgg a xool sama ginnaaw wëlbati ko ndax gis naa leen muy wax ji dafa gàtt dafa am loo xamante ni boo ñu bëggee dugal xel da ngay indi problème rek ndax xel moom bu jaayee rek mu lam ndax loo rëy rëy xel am na ku la ëpp xel loo rëy rëy xel am na ku la ëpp xel kon mbir yi buñ ko teg ci ay xel ay texte lay laaj jullit day am fu mu toll danaan xel mi xaaral tuuti ndax fii ma jëm dafa lëndëm amoo capacité xam fa daal muy nas bu nas xasee ba ñëw na xel noppalu xel daal léegi lañ ko autorisé ci nafs bi mu xalaat ci mun naa nekk waaye pourquoi déedéet loolu bu ci duggee rek sonal boppam moo tax ñii woote woo yàlla te subhanallah bi isa hada al qawl wax gënu koo ñii woote woo yàlla yàlla nga xamante ni juum bi ñu juum ci kaw suuf iblis sax juumu ko iblis sax juumu borom xam-xam yi nettali naan ñi iblis mos naa fekk firaw mu toog mu ne ko non firaw na nag bandi waaye yaa ma gën a bandi firaw na ne ko ah mu ne ko waaw man de moom lu ne def naa ko waaye nag ba mu def nag moom moom yàlla moom wala maay seen borom ah kooku moom àgguma ci xam nga lu tax dafa xam borom bi ki xamul boromam nag mooy réer te li gën a doy waar ci naan yàlla yàlla lañ di wër yàlla du ñu gis yàlla keneen la ñuy gis su ñu gisee keneen kooku nag jox ko lan doon jox yàlla mbaa ñu defal ko lan defal yàlla kon kay nekkatuñu yàlla yàlla diw diw lañu dañ koo ragal na bët mënu koo jot bët dana gis leer waaye du jot leer dana ko gis waaye du ko jot boo toola taaloon làmp làmp yi tàkk xoolal fu leer bi jóge kan moomu mën a fu leer bi jóge da ngay xool rek mu leer rek jékki rek mën a xam fay mais mënoo ni fii la jóge mënuloo beneen bi yàlla dafa bokk ci keemaanam mu bind asamaanam bind suufam bind ay jaam ba pare nag ay texte yu wér ci aaya alquran ak sunna yu saxal ni borom ba ma nga ca kaw asama loolu jullit bi aqida ahlu sunna wal jamaa da cee bokk nga fas ni yàllaa nga ca kaw benn bis bu la lii réeree wala nga jaawale ko ba leneen rek mooy sa ngëm dañ koy xoolaat neel benn ñaareel bi nekkiinu yàlla ca kaw coobareem la fa nekkee waaye la mu fa nekkee ñun xamuñ ko te kenn lijjanti loowu la nga xool na mu fa nekkee waaye yow gëmal gi gëmal ni nekkin gi moom am na mooy al istiwaau maalum waaye kayfi bi mooy problème bi nan la yàlla toogee léegi yow nga bëgg a imaginer yow ñu ngay toogee nga bu ko bu imaginer ne loolu la yàllay toogee ndax loolu bu ñàkk teggi nag xamali bu wér ndax laysa ka mislihi shay wa huwa ku taxamee ba fi nit dina dégg dina gis waaye taxul mu nuroog kon dara melul ni moom yàlla daal ma nga ca kaw asamaan na mu fa toogee sunu yoon nekku ci en daal nee na ma nga ca asamaan dani benn tey bu fekkee da nii man damay gis yàlla ñu bëri dafa am ay ci aaya alquran yu leen di tax inni zahibun ila rabbi sayahdin kan moo ko waxoon mais newul inni ara rabbi inni zahib la wax damay dem ci sama borom waaw léegi damay dem ci sama borom est du tekki dem ca jàkka ja est-ce que du tekki dem jaamu yàlla est du tekki dem wéetal yàlla waaye lan moo ciy wane ne day dem gis yàlla su fekkoon gis yàlla dong la kon ko wax inni zahibun ila rabbi yonti yàlla Moussa mboolem ñi yàlla bind moom moo ci njëkk wax ni rabbi arini andur ilayka xam nga Moussa yàlla da koo may lu bari pouvoir bi bari la ko may bokk na ci Moussa bu soxlaa yàlla woo ko léegi moom amu xaar bu soxlaa yàlla day wax ni yàlla léegi yàlla tontu ko léegi yoonu Jibril na si te yàlla mooy tànn ay yonentam ku nekk mu am lu mu la jox mais Moussa alayhi salaam wax dëgg boroomam bi mu demee dem ba mu yàgg mu bëgg nag deuxième degré deuxième degré bi mooy mu gis boroomam mu ne yàlla man kat dama bëgg nga may ma nga may ma nga gis la rabbi arinii andur ilay kon ndeke ñaan na permission kon lu mu bon bon Moussa li mu njëkk a def mooy xam na ne am na borom kon day ñaan permission waaw yow nga làqu fee sa biir kër nga ne dem gis yàlla ku la ku la ko may te li gën a doy waar ñanaan dañuy gis yàlla ñoom rek ñoo ni ñoo koy gis ñoo lay jox ndigal ah waay waay yëf na nag ñeef <laughs> ba neexul nag yëf yi metti na nag comme da ngeen a mën a gis rek bu keneen mënee gis ba leen ko mu gis waaye il faut nga ñëw ma jox la nga gis yàlla te li gën a dangereux pour nga gis ko il faut nga jaar ci seeni tariqa nga gëm la mu gëm fas la fas di def la ñu def nga doog a mën a gis yàlla mu mel ni yàlla daf leen daal léegi man pour kenn gis ma il faut mu ñëw bokk seen équipe waaw bu bokkee ci seen équipe sol maillot ñu reconnaître ko su boobaa duñu bu bu dam maa gis kon xatal nañu yaatu donte nag lépp du dëgg dafay joxe exemple di gàtt yonent yàlla Moussa bi mu ne yàlla dama laa bëgg a gis yàlla da koo tontu baat boo xam ni ñi jàng arab ñëpp xam nañ ñëpp xam ñi jàng luga ñëpp xam ni baat boobu ci dàq ci arab lu mu dàq bu dégg lan lan bu nee er gën a waaxees déedéet demal nag lam nag mën nga koo wax dellu gannaaw laa mën nga koo wax dellu ginnaaw laakin lan lan araka ay abadan kon borom bi ne Musa, yow de bëgg nga ma gis waye nak lan tarani musa mënu ma gis amo capacité gis ma wax jooju rek bu yemon fofu day doy seuk dalil que ni yalla kenn ko waye yalla bimu waxe lolu musa musa Moussa insisté borom bi am lu ko wal lu ndaw ci kàttanam wan ko ko ci lu ko ëpp moom Moussa muy jabalu tuur nga xamante ni jabalu bokk na ci jabaal yi gën a rëy yi gën a rëy borom bi ne Moussa undur ila al jabal fa in istaqarra makanahu sawfa taraani naudu billah Moussa ko xoolal ci montagne bi soo gisee li ma la bëgg a wan da nga xam ndax mën nga maa gis wala déet borom bi subhaanahu wa taala def tajalli ci montagne bi tajalli mooy jël lenn ci kàttanam wan ko montagne bi montagne bi ne kërëb rëb këpp bi montagne bi ne kërëb rëb këpp tepp Moussa bur wi montagne boobu moo tiital Moussa fa xarra Moussa soyqan yont yàlla Moussa daanu xëm bi mu xamee rek dafa dellu ginnaaw ne ah yàlla nag tuub naa waaye xam naa ne kenn mënu laa gis ñaareel bi wax naa la léegi bët lu mu dajut du ko gis waaw biir jàkka gii ñu nekk xel nangu na kenn ci ñun toog fii gis ci gannaaw ndax xel nangu na loolu xel nanguwul nga nekk ci biir jàkka gis la démarché ba moom kay la fay xew dañ la koy wax rek wala nga jóg dem ca waaye mënoo ko gis borom bi subhanahu wa taala xamal ñu ne ñu du ngeen ma gis yemul ci aaya boobu rek ñaari aaya alquran a ngi nii benn bi yërmande la pour jullit benn bi mbugal la pour yéefar bi ci jiitu mooy kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubuun dafa bokk ci xéewalu jullit bi yawmal qiyaam bi ko yàllay xéewalee mu gis yàlla da cee bokk kon tey contraire bi mbugal lay doon moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne kallaa jajji déedéet ñoom yéeféer yi bis penc du ñu ma gis xam nga lan moo tax jahannama la ñu dugg ñoom ñépp moo tax du ñu gis yàlla jullit bi nag nga xam ni bokkoon na ci lébu gëmoon mooy yàlla du ñu ko gis fii ci àdduna su at mee pour war a dem àjjana <coughs> borom bi daf koy may mu gis ko yonente bi nee na innakum satarawna rabbakum wallahi da ngeen gis seen borom comme ni ngeen di gisee weer wi wala tudaamuun kenn du si yàlla ñu ko yàlla xéewale yàlla wan kanamam bu leer bi yàlla ñu yàlla wan kanamam bu leer bi subhanahu wa su ko defee waa àjjana suñu nekkee àjjana borom bi subhanahu wa taala ñëw ne leen dama leen a bëgg a dollil yéen ñi gëmoon yàlla doon jaamu yàlla yéen ñi gëmoon yàlla di topp yàlla yen ñi gëmon yàlla di roy muhammad sallallahu alayhi wa sallam yen ñi gëmon yàlla teŋku ci ndigalam moytu ay tere dama leena bëgg a dollil bonis waa àjjana tontu ci benn baat ne ko alam tubayyid wujuhana yàlla xana weexaloo sunuy xar kanam يوم تبيض وجوه اي يعني وجوه اهل السنه والجماعه اللهم اجعلنا منهم bis ba xar kanam yi leer nañ wa taswaddul wujuh am xar kanam yuy lëndëm mooy xar kanam yu yéefari yawman abuusan qamtarira ko defee nit ñi kontaan ne yàlla li nga ñu may doy na sëkk yàlla ne <clears throat> maa gën a xam-xamu leen bàyyil ma dolli su dindee kiiraay bi digganteem ak jaam ñi jaam ñi danañu xëm junniy at ndax kontaan allahu akbar xëm junniy at ndax kontaan junni at yooyu nag jar naa jaamu yàlla ba dee ndax gis dara dàqul ko ci kaw suuf yàlla may jullit mu gis ko wujuhu yawma idin naadira ila rabbiha ناظرة يلا نينا أمنا أي كرتلم يو خمني دفا نتخ نتخ موي فرت لول تي كونتان نيت بو كونتان اي كرم ام بي فرت سرط بو دي مخيس بو دي كجوري كرم ام بي جاكي فرت نخ كونتان يلا نينا وجوه يوم اي دي ناظرة أي كرتلم اي دفا نتخ فرت لول أندو ينوى يلا لن نتخ من إلى ربها ناظرة xar kanam yooyu kat dañuy xool seen borom kontaan lool allahu akbar yàlla buñ ko yàlla xañ kon mbokk yi loolu nga xam ni borom bi nee na ñun munuñ koo gis mën nañ cee noppal suñu bopp sànq am na benn wayjur bu ma woo di ma wax ni ci doomam boo xam ni dafa da yóbbu boppam ca yàlla yàlla ya ba daanaka ñàkk sagoom ñàkk xelam waa gis yàlla bu ci dof na ne nekk gay jaratut ko bu fekkee boo gisee yàlla dof yow war nga xam ne gisoo yàlla te wallaahi iblis yi muy def loonaati gën a tuuti iblis du doon yàlla waaye dina la ni may yàlla dana koy naxee nit naxee ko nit nag ngir ànd ak moom dem jahannama rek la bëgg bu nit ci sàgganee mu dugal ko ci loolu loolu bu ko iblis di def du ko jaaral ci fo ci wal diine la koy jaaral ci borom kaala bu rëy la koy jaaral ku mën alxuraan lool jàng am xam-xam lool mu wax nax la ndax iblis pour mu nax la du ñëw wan la boppam day nax nit ba guruur dal ko mu ñëw ci borom xam-xam nax ko ne ko yow kat mën nga def nangam ba gis yàlla kookee nag mooy nekk ambassadeur bi iblis ci kaw suuf di nas nit ñi ne da leen di dugal di leen wan borom bi subhanahu wa ta'ala te loolu wax gënu koo bon kon loolu moom laa doon génne tuuti rek ci laa tudrikul absar te gis nga lu ci bëri ci fa aqida bi aqida abraniyun yi la ak persi aqida boobu mën nga jóge iran ca faris la jóge mboolem ñi ko indi ñi ko indi tey boo delloo ci ñoom ay perse la ñuy doon mi ngi tàmbalee ci xilaafa Umar ibnul Xattaab bi leen Umar jaaxalee du ma leen gauche du ma leen droite ñu ne léegi nag nan la ñuy def pour tàmbalee yàqal islam liggéeyam ñu ne nañ ko jaar ci xam-xam ak diine ak politique ci ñett yii la jaar commencé dugal seeni juriste ak seeni poson ci ramu jullit ñi ki ko njëkk wax ci umma islamiya bii muy Abdullah ibnu Saba ñemewu koo woon waxtu jamono yu Umar mais nëg na ba Umar jàll ndax Umar ibnu Xattaab moom yàlla mayoon na ko loo xam ni moom daanaka amoon na basira yàlla mayoon na ko moo tax xilaafaam problème bëriwul woon bi ñu xoolee xam ni bu ñu dugalee politique du dox ñu ne nañu fexe rey Umar te la ñu réussiree rey Umar bi ñu ko reyee Ousmane ibn Affan ñëw ñu réussir rey Ousmane fekk saaxa jullit ñi tàmbale naa am problème ci jamonoy Ali ibn Abi Talib nag la naa fekk bu bon boobu yéefar bu bon boobu waxee ni gis na yàlla wala nee na maa yàlla Ali ibn Abi Talib ko ne ko déedéet yàlla kenn mënu koo gis kenn mënu koo doon mu saxal ni gëm na ali woo majma islaam yi ñu àtte ñu ne kii yéefar la dañ koy rey ali ibn abi taalib gas pax dugal ko ca ñu taal pax mi mën a na ci dugg ndax da ko doon defal mbugal mu metti pour keneen ku koy gis ragal waaye gis nga iblis ku doy waar moom avant muy dugg li mu njëkk a wax mooy nee na lii kay mooy wane ni يو علي يا يالا كان سبحان الله من يالا رك باي لك تي ياني مي نك خول وورونا دلو غيناو تو مو واخ بات بو بما امي ام نيت نك ني علي بن ابي طالب بوغل سي سفر موم لا يعذب بالنار الا صاحب النار كين دو بوغل سي سفر دول يالا علي بن ابي طالب دلو غيناو واي كلا دينا يموت نك ني كومانسي ñu bon ñi tàmbalee dugg ñu mel ni xallaaj ibn arabi tàmbalee dugg ñu mel ni naqas bandi tàmbalee dugg ñu mel ni abu yazid al bustami ñaari wax nag wax nañ ko ci moom ñii nee nañ ci saa ahlu sunna la bokk ñii nee nañ ci xulaatu suufiya la bokk su fekkee ni wax bii waxam la moo ko wax kon ci xulaat yi la bokk maa fi l jubbati ahadun illa allah te loolu da ngay dégg suñu gars yi fii di ko wax yére bi ma sol kat kenn nekku ci ku dul yàlla lu muy tekki ah mooy ko sol mooy yàlla loolu lay tekki dem ba xalaaj mu mi naal wax wax boo xamante ni dara gënu koo bon al abdu rabbun wa rabbu abdun yaa layta shi'ri man al mukallif mu ne yàlla boroom la jaam bi boroom la kon kan moo yilif loolu subhaanallah wax gënu koo bon dem ba naan wa mal kalbu wal inqinziru illa ilahuna wa ma allahu illa rahibun fil kanisati dem ba ni xaj ak mbaam xuux du ñu dara lu dul yàlla yàlla la ñu comme ñun subhaanallah wa mal kalbu wal xinziru illa ilahuna wa ma allahu illa rahibun fil kanisati mu ne su ngeen bëggee xam yàlla yàlla mooy làbbe ba ca église ba mu commencé woote ci nasraan yi yu mel ni boo ko doon topp ilax fu mu lay jëme ci réeral la yow jullit bi loo ci war a jàngee li nga ci war a jàngee mooy pas-pas bii du pas-pasu islaam ka woote même bu dee day dugg ci jàkka di julli woor nekkatul jullit bis bu la leeree ni kii dafa gëm yàlla yàlla dafa gëm ni moom yàlla la bu ne allahu akbar neel asalaamaaleykum génn ndax génn na islaam mënu laa jiite julli wallahi ladi laa ilaha laa jiite julli loolu kenn du ko masla képp ku xës ba gëm ni yàlla la mbaa gëm ni diw yàlla la bu la jiitee boo toppee ci ginnaam doo am julli képp ku gëm ni yonent la mbaa way juróom yonent la mbaa ki mu gëm yonent la ginnaaw muhammad bu la jiitee sa julli du wér yii moom jarul sax ñu koy négocier kon mbokk yi yàlla nee na laa tudrikuhu l absaar bët yi mënul koo jot wa huwa nag moom yàlla yudriku l absaara moom mooy jot bët yi xam nga lu tax wa huwa moom al latifu mooy aji ñewete alxabiir mooy aji dañ kumpa subhanahu wa taala ndaw ñi ba ñu ñàkkee diina ñàkk yaru islaam la lu bëri yóbbu leen nax leen ci naxiin yoo xam ni laa yaalamuhu illa allah ndaw li nga xamante ni dem na ba diina neex ko mu ñëw ni dafa bëgg jaamu boroomam bul dox digganteem ak boroomam gëmloo ko ni boo wiir dee da gis yàlla te li gën a doy waar dañu lay wirduloo di la jazb di la xalaatloo dañ lay wirduloo ay salaatu ala nabi ay laa ilaha illa allah ñetti junni yoon nga di ko def wala juróomi junni yoon boo xasee ba julli ci yonent bi nag ci ñoom siixa bañ koy defee nga def ko juróomi téeméer yoon tàmbala nag di laa ilaha illa allah rek di dem loolu boo ko toppee ba feeram tàng jër nga ñëw ñu ne nañ la jazbu

سخيل دم بول بتركون غور غور جسدون قال لك وانك كي ما يور من لا وا وا ما يور لين لين غنيو يلا لا خير بي سمو جوغي تكما خير كات ني ديغي دي سوف اك ندوخ اك نغالو و نيوي با واخ نيب يوي جوغي كون واخ ني فو نغالو جوغي غا ديلوت لا اله الا الله لا لا الا لا فو لا جوغي فو نغالو جوغي فو نغالو جوغي ah commencé ñëw ba yàgg ngelaw ngelaw ngelaw ngelaw ñu nga jóge ci tuuri jigéen ñu ne la fu ngay jóge nga nekk yëfi dof yi gën a leer nag mooy lañ nga naan puuritu géej ñu ngi jóge ci ñàkk Muhammad Muhammad mën a ñàkk laa ilaaha illallaah bu dee ci moom la jóge de xanaa mooy ñàkkaakoon bu mag bi yooyu lañ lay gëmloo di la sotti benn par benn ngay dem ba jàkk ñu ne ki ngay wër yawa moo tax da ngay dégg ñu naan jàngkat bu tarbiya du àgg waaw parce que li mu jàng ak li nga ko bëgg dugal ci xale ba mënta ànd léegi nag boo ko ñu ne doo seetaan télé doo toog ak nit ñi da ngay wéet da ngay beru sëñ bi képp ku wéet seytaane mën la innama yakulu zib min al sama benn sëriñ daara papaam dugg ci loolu nekk ci nekk ci ñetti at ñun du am fu ñu ko booleel du am mu dem dem ba jàgg kii ba bu mag bi ne nañ ma ko indil bi mu ñëwee ne ko allah ji diw yow day aj nga màkk waaye amoo aj julli nga waaye amoo julli mu ne ko lan moo def mu ne ko léegi xamagoo yaay kan mu ne ko déedéet xamaguma ko de ndax wa fi anfusikum afala tubsirun والله الذي لا اله غيره با ميم واخ نيمو مكو واخ دا كو ني خانا خاموني كابينا بي مو يال رك بور كي دانو كوم بور كي دانو كوم دا دون باكو مان تي كابينا لا جي دي سام بروم كان ني نتي امنا لول نيت لي كو دافو اوب دا فا جيغي دا بو نيتي يالا بيري سا اسمانو سوف مبكنتي يو ملني نك نيت ديكو ديف te nga xam-xam bu leer ci xam-xam bu wér ni wérut xel nanguwu ko sharia nanguwu ko nga di ko teggi nag ñu ne day xeex mag ñi waaw ñoom tey dañuy xeex mag ñi waaw mag ñi liñ fi indi nangam nangam nangam nangam buntu la boo xam ne seytaane yi ñoo ci jaar léegi nag li gën a doy waar jamono boo demee bañ ñi àgg nga bañ ñi àgg nga duñ lay gëmloo dañ lay gëmloo ni léegi nag ñetti daraja moo am ci mbirum yàlla huwa allah huwa huwa du daal mooy yàlla mooy yàlla ñu ne koy jàll bi nga ñu ne huwa la damir gaayib la kon soxlaa bu ñu li ngay wax dema dem dem ba àgg ñëwaat ci beneen maqaama ant allah ñu ne yonent yàlla yunus bi mu nekkee fii dulumaatin salaas foofu dafaa gis boromam moo tax mu ne laa ilaha illa anta joxoñ yàlla boobu di maqaama boo war a àgg boo demee ba dagg kiiraa yooyu ñëwaat ñu ne la def na ndax fi mu ne nii léegi laa ilaha illa huwa La ilaha illa anta def na maqamu bi gëna kawé nak ci maqamay borom mooy ban ah la ilaha illa ana bis bo démé nak bani la ilaha illa ana inna lillahi wa inna ilayhi rajiun dëkk nga sa borom combat wallahi ladi ilaha illa firawna li mu def ci kaw suuf lu bon lepp yalla da ko muñal waaye bis ba mu nee ana rabbukumul aala yàlla ne ko bàkk nga njaag nag léegi nag moom yematoo ci la ma la jox nga bëgg a jéggi la ma la jox ñëw ci li ma ñëw ci sama yëf tey ma doo yàlla moo tax gis nga bi ko jibril ne niix poñe fi yam jibril ñëw na di nettali yonante bi ne ko keroog boo ma gisee bi ma nee firi aw ñu rëkk poñe ba mu ne laa ilaha ma njëkkanteeg moom ndax xam naa ni kuy dellu ginnaaw rek sama borom di ko baax mu ne ku nekk yëkkati ba di kaw dóor ci suuf mu ne laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israil kon moom génn na boppam waaw loolu loolu ko la bu noonu laa ilaha illa allah ak lu bon li mu def lépp yàlla da koy jéggal yàlla da koy jéggal bu noonu laa ilaha illa ant yàlla mën na koy jéggal waaye mu ne illa alladi amanat bihi Jibril ne ko eh al'aan waqad asayt léegi ngay doog a wax lii ba nga demee ba pexe jeex yomb na nit dem ba jaaxle jaaxle kay non yàlla rek kay buur ida rakibu fi fulki da'awu llaaha man na najjaahum ilal barri idaa hum su neexee rek la gaa jox yàlla keneen waaye bu naqaree ñu delloo ko mbir yi suy metti ñu ne ko yow dong la yow borom bi du keneen loolu nag. muy maqaama biñ lay defloo ci yàlla nga jóge foofu nag ñu ne léegi nag na dem wuri maqaamay muhammad te gis nga li gën a doy waar xoolal muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñetti maqaama lañ ko jox muhammad it ñu jox ko ñetti maqaama tuutil ko lool mu xeem léegi mu def kilifay tariqa ba nga jox fondateur ba ko sasoon moom moo ëppale yàlla ëppale Muhammad ndax am na ñeenti maqaam kon dafa fu ñu bëgg yóbbu nga toppati loolu di dox di dox di dox di dox ba benn bu nekk jeex te li gën a doy waar jamono boo tollee ci loolu moo fi nekk nit ñëw moo tax moment boobu pour wàcce la lu jafe la pour delloo nit ki ginnaaw lu jafe la du aaya alquran du xadiis gis nga kooku nit ku xët ba foofu te xel rek nga mën a dellu si li gaa yi wax da nga koy a rokkosu rek su dut loolu pour nga wàcc ko day def léegi tuuti maqaama yàlla tuuti maqaamu muhammad réyal maqaama ku sas tariqa bi nga réyal fa la yem déedéet ñeenteelu maqaama bi mooy fa nga bokk fa nga jokk ka ko sos moo ëpp yàlla doole ëpp yonent bi doole ëpp sëriñ bu mag bi doole moom mooy ngand bi léegi moo tax dootoo gis keneen ku dul moom lu wax rek diw diwee waay diw diwee waay diw rek mun ngay def léegi nag lii di loo xamante ni ndaw ñu bëri sànq dañ nit yàlla may hidaaya yàlla nañu may njub wallahi ku sàggan ba yàlla mayut la hidaaya nga daanu ci pax yu mel nii ndax pax la yu nuroog diine saraabum biqiia la soo deful ndànk rek mën nga cee daal la la a bëri a ngay jaay da ngay ci ñoom ñu la ko ëppale moom kay la nga mën a am xelu xak ñoom mooy xam-xam sunna bu leer xam seeni mabaadi mais bu dul loolu boo duggee ñoom maa ngi conseillé mbokk yu bari am na benn mbokk bu ma woo bu yàggul dama dafa am benn débat moom ak benn waay ci ñoom lan laa koy conseillé ma a mu ne ma lan moo tax parce que mbokk yi fii kenn ñemoo toog ak moom mu ne ba na mbokk yi dawee ñooñu ñoo la dara ëpp chance mooy dugg ndax koo xam ne alquran bi ngay wax gëmu ko sunna bi ngay wax gëmu ko aaya yi ngay wax gëmut ko fan ngay teg sa discussion ak moom fan lay tege ki weddi li nga gëm ba pare mu ngi mel ni ñu naan dialogue islamo-chrétien mais dialogue boobu foofu problème la dialogue par défaut la kii ne sa yàlla dafa am jabar am doom sa yàlla du tus nga bëgg ñooñu da nga dialogue ak moom mais dialogue amatu fi dafa war a am lu mu nangu tuuti nga am loo nangu ngeen toog nag débat bi ci lan ngeen koy retardé pour mu dem il faut débat débat bu débat au fond il faut moom fu ñuy teg mbir lii àtte xanaa blanche kay war na am ñu xam ñaata fois mais débat a xam ne da ngay sànni rek nii wii wii wii rek da ngay perte sa temps mën nga bu ci sonal sa bopp ñu dëgër bopp dem ci daanaka dem na ñetti yoon mais ah fii ñii kenn mënut a wax ñoom parce que da ngaa dëgër bopp ñii am na ñu mën a wax ak ñoom mais yow bokkoo ci ñu mën a wax ak kon bàyyi leen noppalu. bàyyi leen nga noppal dafa am ñoo xamante bu ñuy wax génnal nga dem soon ndax seytaane yu mat sëkk la li ci gën a doy ci ëpp ci ñoom dañuy njabar dañuy njabar te mbokk yi njabar am na de wallahi njabar am na gaa yi dañoo njabar Muhammad sallallahu alayhi sallam dañ ko njabar ba mu feebar yow yaay kat am na de moytul ca lekk ya moytul naan ya moytul nuyoo ya moytul nuyoo ya am na ci ñoo xam ne bu ñu xamee sa turu ndey sa turu bàyyi yeewu la léegi nga topp leen boo leen topp doo ko tay ñoom nag dañoo am fayda ñii am intérêt dong la ñuy xëcc fonctionnaire bi professeur université bi loo xam ne bu ñuy am lu mu indi mais Samba bi nga xam ne àttanuñ sax benn dambatee jax dañ ko kii luñ ko dee soxla wuñ ko intellectuel yu toll nii fan la leen gars yi jaar da nga foog ni xel la yàlla lañ ko xel dañ leen a sixir sixir te li gën a doy waar dinaa la nekk benn extrait boo xam ni man mii la dal jamono bi may ñëw rii pour pour tarbi bi xamee wër naa fu bëri fu ne dugg naa fa ñu jéem maa dugal sa mbokk dara wul te dugg ñu ne ma yow ki mën a ki la mën a àggal rek mooy Mahdi Mahdi mi ngi rii heure gis nga tàkkusaan ba may agsi ba may agsi ne këram ci buntu kër gi gisaguma waaw kooku day Serigne Omar Sall ñi ngi leen mu ni tëll nuyoo mu ne ma Omar Sall sama turu wax ma ko dag ma ni man kay agsi naa mais boobu moom xam na ni man neexumaa jàllale fi mu mën a jàppal guddi deux heures du matin la ñu nekk ci ba julli fajar ñu julli fajar dooga dem di wir di dóori mel rek damay nekk ba jàkk nelaw ma ne ma xub yàlla du nelaw dam continué waat nelaw noonu la ma dee noonu la ma dee trois mois affaire bi dëgër lool dëgër lool mu ne il faut ñu transférer ma yof ñu yëpp ma yof ci beneen waaye boo xamante ni moo gën a kii mais moom moom foofa maa ñëw ñu noonu yow fa nga war a àggee mooy fa avion yi jógee ndax sa maqaama maqaama yi naaw ndox kat la <laughs> ndax yi grand yi quoi ñu ne dox kat la yow ci sa àdduna tukki rek mooy sa njëriñ xanaa lan mooy sama tukki yu bari yi bokk gis nga noonu laa mujj def aéroport laay dugg ci biir àll ba fay dugg 6 heures du matin laay dugg àll aéroport nga xam ni lu nekk ci biir damay yéeg ci garab yi wér di ci yàgg mbir bépp ci suuf jóg yéegaat yàlla ma dimbali mais mënoon naa daanu dam yu mel nii buñ la koy nekk nii waaw yàlla nañu yàlla may hidaaya yàlla nañu yàlla may hidaaya moo bi ma yàlla defaree hidaaya hidaaya bi yàlla defaree yàlla ma ma si waat ñu bari ci ñoom xeex bu ne façon mën nañu koy def métit lu lu ne lu ne gar gëmloo woon nañ ma lu ne nag lu ne nag amoon naa wax dëgg yàlla yàlla dimbali ñu rek waaye bu fekkee wàllu àdduna teraa ngay àdduna rek bu dee loolu dong yeewoon naa ci lu bari yeewuma sam benn morom kon ci loolu lañ lay nax utal la kër gu rafet utal la oto bu rafet takkal lay soxla boole laa kii taalibe boo nee xaar ñu lekk ko wallahi ladi laa ilaha gayru boo nee xaar ñu lekk ko léegi non subhanallah yàlla kon jinne yu mel nii seytaane fa zayyana lahum seytaan yàlla teel na laa wan ni seytaane day taaral nit lu bon mu dem ba rafet ci kanamam xam nga ni jaalookat bi ba muy jaaloo xamul ni ñaaw na bu ko xamoon dana ko def xamul ko bàkkaar kat bi ba muy bàkkaar xamul ni lii bàkkaar la bu ko xamoon bu ko def am na koo xam ne da nga àgg ci xam ko bon jàpp ko waaye ñi bëri ñii def xamul kon nag borom bi neena na lii ba mu leeree ci seen bopp ba pare war ngeen a xam ne woo yudrikal absar moom yàlla mooy jot bët yi waaye bët bu ko jot mu ne kat jaakum ca dëgg-dëgg dikkal na leen ba foo iru ay xam-xam ay aaya yoo xam ne bu ngeen ca yemoon mu doy sëkk su ko góor doyloo am lu mu jaamoo yàlla su ko jigéen doyloo am lu mu jaamoo ki gën a sonn ci nit ñi mooy ki bëgg lu ëpp képp ku bëgg lu ëpp rek boo deful ndànk lépp ëpp la ci njàng ci ut xam-xam ci ut alal ci ut àdduna ëppal baaxut ci tatarruf baaxut même ci sunna bi ñuy dund ñi ci tatarruf dañuy mujj dellu ginnaaw génn yàlla jàll sax ginnaaw boobu lan moo koy sabab mooy da ngay lu ndaw ba duutoo gis lu mag gis nga am na benn yëfat boo xam ne dafa xas yonent bi ganaim xaybar ganaim bi di ko séddale waaye di xool yonent bi dox ba jaar mu ne ko alal bi du sa alal ndey du sa alal bàyyi mu ko séddale ko mu jaar yoon ñi demoon xeex islam da jox ay cër yu ëpp ñu demut waaye waaye faddalallahu mujahidina ala alqaidina daraja nag wax dëgg yàlla ci dem xeexe ak yow mi toog sa dal tëdd nelaw ba mu neex la kee ñett jaas yi dal ci kawam ñëw na ngeen bëgg a tolloo kiif kiif xel nangu na même société yi ngeen di liggéeyee dafa naan ak kii bi ñu nekk benn dëgg la yi tolloo léegi waa ji ëppal jàpp ko mën a yorante bi du alalu ndayam pourquoi muy tànn ay lu dëpp leen nga bàyyi ci des yorante bi gerte ne ko yaa alku man suma maamul kan mooy maam man yaadim in lam taadim ibn xool ko ba xam ne xool bi jëf tàkk alim nee na waa jooju waxoon loolu yow ma nahrawaan dama koo gis moom ci boppam mu bokk ci munaafikuuna yi ci zandaqa yi ñii xeex ak jullit ñi xam nga lu ko indi ñoo xam ni dañuy tar lool ci mbir yi bu yàggee nga gis leen ñu dellu ginnaaw dañuy wàccaat ba suuf kenn doo ko jàpp dara jor léeg nga xeet nit ki ci sikkimam bu ndaw yaa fii kii day wat day nangam nangam nangam jamono lay jàpp boo motu nga ne boo commencé ko wax yow da ngay génn suuf la eh, misaal yooyu bëri na de <coughs> ngeen di teg bët kon mbir yi bokk na ci yem bokk na ci nga yëg ni islam diine yusur la jàppandal diine ji lépp oyof غالا بوتي ديسل دارا دارا دارا ندخ دارا ديفيت كي غور تي جيجين كين كون لا داف لا مو تولور موتاخ تي جابو يالا ني بوك غا يالو اكتر خذوا من الاعمال ما تطيقون فان الله لا يمل حتى تملوا جل لين تي مبري لو نين اكتر يالا دو يوقات بو واري جيم تي يالا تي يالا دو يوقات تي غا يالو اكتر waaye boo nee damay yenu lu bëri ndax xër bu ma àggee mu fay ma lépp lu muy fay jaam ñi boo mujj jaam ñi danañu àgg ba noppaloo ay at ngay doog si dinaa koy faral di joxe misaal ci buñ doon course kii yenu kilo kii cinq kilo kii dix kilo kii ñëw yenu cent kilo kuy njëkk ndax ki yenu cent kilo xër moo ko jàpp moo tax xër dafa yaatu ñaari ràkk bu mën ci guddi gi du ko romb sax defal ci la sa noflaay nekk so paré nga julli def nga lu bari waaye nak sa ñaar yi nga commencé nak non to abdallah juróom ñet lay def il faut ma juróom-ñett gis nga rom day ñaar rombaat ñaar commencé boo ko defee day def ko suma ginnaw suma do mëna julli day dee ba yàlla non na xaw nokkal du tuuti ba 4h ma julli ñew nga boros 4h mu jall bo boo moytuwul julli fajar sax dalay rom romb kon mu ngi amal su ma ci def li nga attan li nga attan ngay dem di def ndank ndank ndànk ndànk ba nga yëg même même même sax ci adduna lépp looy def ndànk nga ñu demee ba réussite munoo am diplôme rek ci service ñëw rek ñu nomé la mënut a nekk defe naa foo nga def stage ñu xool li nga jàng ak li ngay jëfee ndax nuroo na stage 6 mois stage 1 mois bu ndax bu loolu rek dama danga ci àgg rek ñu embauché la déedéet déedéet dañuy commencé nag dina defal contrat di contrôlé bu ñu demee ba xam ne mbir mi dëgër la nag ñu doon commencé nag am poste yu ndaw. xof yi daw ba gën a daw ba ca gën a mag ba ca gën a mag ba ngay àgg ci daw waaye ñëw rek loo bëgg a non directeur général DG loolu déedéet de de de kay balaa ak kay xanaa AB fee ngi tamit ñu ngi fi nag xanaa doo ñëw romb AB léegi nag kon nag ci mbir yi benn benn ngay tàmbalee gis nga amul lenn lu yàlla tàmbalee lu bëri lu dul sëy wër leen bu faaj yaa ngi fi sëy doomu la tàmbalee mas naa wasulaasa wa rubaa waaye li ci def waahid isnayni salaas wëral ba mu neex foo dugg ci loolu dong la yàlla tàmbalee ñaar li tax mu tàmbalee ñaar xikma yu bëri moo fi nekk xikma yu bëri moo fi nekk xikam yooyu bokk na ci gis nga yàlla nañ dem sax ma continué <laughs> damay mën a sori gars yi xam nga ñi la ñu ne ñoom damay damay faral góor ñi rek mais ñoom laa faral gis nga nga dama ko faral di wax toujours lépp loo xam ne bi muy nàmp ñaari ween la nàmp lay nàmpale lépp luy nàmpalee ñaari ween góoram benn jigéen doy xaw ma déggeen wax wala lépp luy nàmpalee ñaari góoram benn jigéen doy lu ëpp ñaari ween nag góoram benn jigéen doy na xisma ilaahi xoolal lu yépp moo tax golo bi ngay gis golo ay jabar la am de doom benn la muy ñaaw ñaaw ay soxna lay yor waaw waaw ak baax nga ko kéemaan tawaasum bi nekk ci lu mel noonu li ci nekk kéemaan parce que góor ni ko yàlla bindee dafa bëri looy jàngate ci moom loo xamante ni pour mu équilibre ñaar ñaar xanaa xamoo benn soxna boo ko yoree doo équilibre mënoo équilibre matoo àtte kat bu ñu la defoon ci poids nga daan matuloo waaw ngeen baal woon ak imam ngeen ngeen ngeen baal ma dégg xam nga lu tax teemaan yu bëri moo ko nekk gis nga benn bi nga fa ngay yem ñaar rek mun na nekk néew doole tax ak gudd loo ci dépense ak lu demee noonu wala néew kàttan ci wàllu sëy dana mën a tax waaye lépp dajaloo ci yow nga yem ci benn foo jaar nga bëtt sàkket tubaab yi ko bañ bay def benn benn dañuy am ay maîtresse rek lu kenn xamut parce que gis nga fa maa raawha xaqa riayatiha loolu bokk na fi kéemaan yi maanaam boo seetloo xaj dafa romb dafa romb ñaari weer moo tax gis nga xaj ak mu ne benn yoon la ci sëy benn yoon lay sëy xet wala xaj bu sëy ñaar yoon benn yoon lay sëy moo tax mag ñi di wax ne boo bëggee nekk nit yàlla yoral di koy xet kon boo xoolee muus kazaalik benn yoon lay sëy amul kàttan nga xool ci li nga xam ne day nàmpal romb ñaari weer di sëy lu bari benn la gaynde gaynde mooy sëy soixante ba soixante-dix fois te bu ko sëy ba sëy loolu pare na dootul sëyaat gaynde benn jabar lay am du sëy fii dem sëy fële déedéet bu ngeen xoolee àll bi yépp xore bi moom doom benn gaynde bu jigéen a nekk wala yeneen gaynde fa nekk bu leen soxla parce que xam ngeen gaynde bu jigéen moom du mujj moom <laughs> moom amul mujj moom kon lu demee noonu boo ko jàngatee ci mel noonu dafa am loo xamante ni boo ci ëppalee indi sa bopp lool diine ji ndànk ndànk ndànk dafa ngay àgg bokk na ci ñu bëri suufiya li ko indi ginnaaw xeet diine bokk na ci tasarruf ëppal bokk na ci li ko indi taxaw ni da ngay julli junni rakka taxaw nga ne da ngay def salaatu ala nabi juróom benn junni yoon yii yëpp ay mbir la yoo xam ne boo yemoon ci yemukaay bi mu yomb ndax wa zakirina allah kathiran wa zakira bi ko borom bi wax mooy aati kulla di xaqin xaqa bi ngay dugg ci kër gi ne bismillahi walajna wala allahuma inni as'aluka xayra al mawli wala nga ne bismillah ba nga xëse ba dugg yaa ngi zikr ba ba ngay génn kër gi yaa ngi zikr ba ba ngay génn kër gi kon est ce que jar naa gàddu yaa salaam yaa salaam yaa salaam yaa salaam yaa salaam léeg-léeg nit ñëw ci gërëm di yaakaaraan fekk fekk nekkul ci wird parce que xamul sax li mu war a wax buy dugg ci gër xamu ko xamut ko kon moom dana nekk di def loo xam ne day bëri lool te du ko jëriñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa romb bàjjenam muy tudd yàlla di teg ay saal xadis bi am na daal ba ma rombe ba léegi def naa lu ëpp li nga def mënu ko lan يعني ديك سبحان الله عز خلقه سبحان الله يرجع سبحان الله من ذلك سبحان الله جل عرشه nga xamante ni xoole adada xalqullah yonent bi fi nekk di ko lim junni yoon mais dafa ne yàlla subhanallah li mu li nga bindul lépp yaa ko xam man xaw ma ko kii ku ko mën a ëppale li yàlla bind lépp ñun ñii ci jàkka ci lañ bokk suñuy doom suñuy mbokk lépp loo xam ne yàlla la bind rek yonent bi nee na subhanallah ci suba boo defut lu mel noonu mbaa lu ko ëpp doo ko ëppale subhanallah midaada kalimaat yi yàlla sa baat yi daa yu koy binde nañu toll law kaana albahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida albahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw jinaa bi mislihi madada yonent bi ne subhanallah midaada kalimaat yàlla dama ni subhanallah nee ma ñaata li tolloog la ngay bind ca sa daaya loola laa wax kan ma mën a per utal ñeenti junni ma da ngay nelaw doo dem te kii wax na ko ci fraction de seconde ñu koy bindal loolu subhanallah fi na fi agsi am na yoo xam ne fii na fi agsi la def arasu yàlla li muy pesé ku ko xam am na basil yu baax sax yàlla li sa araf bi toll li muy pesé wax naa ko subhanallah allahu akbar ah xoola ma lu toll nii boo ko xooloon tey kii toog fii di tudd yàlla lu bëree bëri ñu ne noo kii tudd sax yàlla la yow romb nga ko fi dem waxtaan nga fudd nga fooga yaa ngi tudd yàlla nga ne non yow doo tudd yàlla yow vraiment yéen yéen xamul tax ibaadu yi bi ñu tudd yàlla rek ma <laughs> yi bi ñu tudd yàlla tuddoo ko yàlla yow àttanoo ko machine yi bu parce que xam nañu fi ñu war a teg mbir yi fañ ko war a xam nañu kon lu mel noonu xoolal ngay tudd yàlla ba dugg ci duus dugg ci duuf bismillah jàng ñaan bi jiital tànku càmmoñ yàlla mu la ci seytaane yi duus ba pare diir ba nga fa defee ñu lay ci ko waraat ci bi ko tiyaaba yem naa ci ne day wirdi ba deux heures du matin doo ko tëdd day yem mu du kon yu mel nii xikma yu mel nii moo tax sunna dafa oyof te am jàmm léegi nag boo xeebee ëppal ngay indi problème bu xeebee ëppal ngay di problème bokk na ca ñëkkal sa xar kanam jullit du ñëkkal xar kanamam sa xar kanam la ci mbir tey feeñ foofu waaye boo duggee ci biir mbokk yi ñangal nekk benn Ablaay mu Mubaarak waaw fekk koo xamante ni buñ ne doo noy yi sax lu la subhanallah yàlla <laughs> ni def noo xamante ni yow leer na da ngay sa bopp xam nga li nga def newul yow yow yaa gën a xam ni lii newut ci yow kon yaa ngi wax sa bopp te jullit war loo boppam nit nga kenn nga ci mbindee fii kanam gi ubbi ko yaatal ko te ba basasatul wati li mu lay may ci daaba kenn xamul nu mu toll ubbi sa xar kanam li muy dugal kenn xamul nu mu toll kenn maa gàddaa seet si yonente bi yonente bi di kafar moom xoolal kas muhammad sallallahu alayhi di kaf léegi boo kafee nga def nga musiba maa man di kafal moom ah yow de màgget yow naa man de màgget laa yow dem na ko màgget rek tànnee sànni màgget amul àjjana rek ndaw si yuuxu waaye frère bu di yoo way na sam na sam na yow sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mu woo mu ne ko dama lay xamal ne àjjana ndaw moo fay dem lii ci kaf la min baabil midaax saxaaba yi dañ doon kaf Ali ibn Abi Talib nee kaf baax na ci jullit bu rombul sart rombu sart mooy kafeelu xaraam mais kaf ngir reetaan dindi stress ci jaamu yàlla la bokk Abdullah ibn Mas'ud nee na dee leen kaf ndax seen xol ubbeeku yàlla yërëm leen xoola imam Shuba daf taabiye la dafa jàngale ci darsam ba pare benn laskat bu mu mën a laaj laaj ne ko waa imam man daal li may laaj mooy Iblis jabaram dafa rafet wala dafa ñaaw <laughs> ah gis nga wax loolu ba pare saa bi yëkkati taaj bi muuñ réer ba yàgg nga ko mariage boobu fekke wu ma. <laughs> waaw na dëgg loolu mariage vraiment fekke wu ma bu mën laa wax ndaw si mel. mais ku xoolal borom xam-xam yu toll nii ah di reetaan di kaf di wax tey jàngale jàngale sunna yoo xamante ni kenn xamul lu mu toll ci kaw suuf yu mel nii bu ko xañ sa bopp.

Allahu akbar nangam nangam nangam nangam nangam déedéet dede, ñaan ak kafal mu njëkk daal su ko defee Umar ibn Khattab nee na yéem na ma borom kër buy dugg ci këram njabootam bang ñëpp seet yàlla ci kon kafal même sa kafal dàqanteeg moom tooñanteeg moom li mu togg soxna tey li nga togg nangam nangam nangam la dafa mel ni rek moom mun nañu dañ bi du jot na incha allah ba gas si lii ñu ko